bokk ci artistes yi nga xam ne teew nañ fii ci initiative bi nga xam ne Marodi tey ñu ngi connecté rek ci seen kilifabe suñu doyen bu fekkee vidéo waaw ñu lay nuyu fay nañ la yaa am jàmm ñu ngi sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah alors lu waral sa teewaay tey samedi 22 juin yéen a gis li nga xam ne tey Marodi ñu ngi def li nga xam ne mooy saison première saison bu Babel waaw ñëw euh, en tant que waaw lii war na di gën a am war na gën a am scénario bi muy dëgg

Sénégal yëpp seen kër la en tout cas histoire Sénégal mënul jeex ñaari kër yëpp samay kër la ñaari groupe yu nga demete ñu fi ne acteurs yi fi ne yëpp samay naaw la lañu samay morom acteurs lañu ñooy toog di añ di naanandoo euh, Babel te bu baare démb rek moom man ak ñoom ñu chaque jour on est ensemble ñun acteurs yi amul benn problème les hommes production yi amul benn problème léeg-léeg nag sant yàlla man am naa am nañ sama frère am nañ ñoo xam ne am nañ sama fan tey sonn naa am nañu ma may yore sonn am na ko wax kon dama koy sant yàlla am naa xaalis parce que sama yaay avant muy dem mu ne ma ci acteur yi volet cinématographique euh, bi yow kenn dootu la présenté parce que xamee la ci série yu mag a mag yoo xam ni euh, sénégalais maa ngi lay nuyu gëj naa laa na mu naan nag waaye da <laughs> ma bàyyi la nga nuyu sénégalais yi lay seetaan te namoon gis sa kanam waaw gars yi maa ngi leen di ziar vous qui êtes euh, qui êtes dans sous dans l'ombre xam nga ñun dañuy jouer rek mais yéen ñi ñi nga xam ne yéen ñuy wone donc maa ngi leen di déwénati dina wax ba ngeen baal ñu àq donc man la Pape Demba Thioune alias colonel mais fi ñu nekk nii ak waa Marodi yi maa ngi nekk ci déséance plus connu sous le nom de Kandji mhm. dans le cercle du professeur Diop a ay Daouda donc euh, voilà on la là aujourd'hui pour fêter dernier épisode bu Babel et c'est un plaisir d'être avec eux naka nga jàngatee en tant moom c'est un truc extraordinaire un truc à la sénégalaise moi je vois que ne Sénégal sànq bi ma nee sama waa ko ñi moom man dama war a dem seeti waa Babel yi dañu war a def seen dernier kii bi ñu ne ma non lu grand Babel moom moo ko yor donc on peut dire que ni actuellement au Sénégal industrie cinématographique bi mi ngi développé wu grâce au label ku mel ni ak série yi nga xam ne yi ngi mel ni ay euh, déséance ak Babel bi nga xam moo ñu fi indi tey série la boo xam ni képp kuy Sénégalais di ci gis sa bopp ci comment vivent les Sénégalais en communauté ci seen biir kër yi que ça soit ci problème mu ethnie yi problème mu race yeeg yooyu yëpp c'est des yoo xam ni c'est pas parce que gars yi dañ koy jouer mu doon loo xam ne nit ñi dañ ci war a jaxasoo non non non c'est pour apprendre dañu war a jàng parce que cinéma loolu la art la boo xam ni chacun apparaît joue son rôle et disparaît donc je vois que ni Babel affaire la boo xam ni bon man j'ai tellement voulu être avec waa Babel yi mais nag c'est dommage que ni ñun. bandi rek man moom bandi rek la ma gars yi def loolu quoi rôle bandi rek. Ah, alors tey ban satisfaction nga am c'est vrai que wax nga ko dañu ñëw pour seetaan si li nga xam ne mooy dernier épisode bi nga xam ne mooy série Babel réalisation bi culturellement ak li nga xam ne mooy thème bi aussi lan nga jàpp ni vraiment moom la mën a impacté socialement. moom laay wax socialement euh, mooy communion bi war a am entre les familles sénégalaises déjà ci biir kër parce que da ngay gis par exemple Babel boo koy seetaan da ngay kontaan parce que comment. devrait vivre les Sénégalais en question seen biir kër nga xam ni papa yaay doom maam sët ñëppay nekk ci benn kër c'est pas facile jikko yi dañuy ute ñëpp yamuñu mais nag quand même y a un chef de famille et je crois que ni gis nañu chef de famille foofu comment il a pu incarner y de grands acteurs comme yaxara ak yooyu yëpp nekk ci biir foofu boo leen xoolee ñoom Fodé Sarr ak yooyu da ngay xam ni ñii actuellement ñi ngi jàngale donc li ma ci gis dëggantaan man moom mooy euh, Babel daal euh, je crois que ni année bi waa di wan nañu beneen facette wan nañu facette boo xam ne moom mooy wane ni tey ji Sénégal war nañu mën di dund di di di jàppalante en famille di di muñalante waaw di xam ni lépp def ceeg sotti si la daal. d'accord yi bëri na label yi ñu ngi si gis seen bopp à travers les sponsors les partenariats euh, que aussi yéen a ngi ciy seen bopp bu baax boo demee ci daal di si génn ci euh, na est-ce a respecté séquence ak xam ne war nañ loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy ci li ñu war a def si focus. focus waaw ci lañu ñu war a régler carrément man maa ngi nekk ci yenn groupe yoo xam ne comme collectif des acteurs wala acteur social ñu nekk di xeex actuellement nii suñu ay sax droit de vision ñun loolu amuñu ko te c'est pas normal waxatuma la sax. ñun ni ñuy interprété seq koog par exemple producteurs yi li ñu war a fay comme ni nga ko waxee sous région bi ay Nigéria ak yooyu j'ai eu à faire un tournage avec benn label boo xam ne dañ doon def benn affaire ci Thierno Souleymane Baal on cherchait par exemple benn euh, personnage boo xam ne Thierno Souleymane Baal mais xam nga la ñu indi un Nigérian et pourtant on pouvait bien le trouver ici au Sénégal te waa ñu ngi indee il était bien logé il était bien payé ñun duñ ne sax on n'était pas bien payé mais quand même c'était pas la chose donc euh, ñoom li ñu leen fay uti nag ñun li ñuy fay donc doon na loo xam ne war nañ liggéey bu baax baax muy ñun par rapport ak maison de production yi mais aussi par rapport ak SODAV. que contrat liggéey nekkoo ci yoon yu bëri doo mën topp ñun déjà acteurs yi au niveau du Sénégal nekk bu ñu amaguñu statut carrément te boo ko amulee doo mën a topp ci yoon yi. doo mën a kaas mais bés bu yàlla defoon ñu dem au jour am suñu statut ba xam ne xam nañu un artiste koy respecté mu am ay mutuelle bés feebaree ñu faj koog yooyu bu boobaa dinañu mën a xeex ak maison de production yi xam ne tey jii suñu la génnee ba benn affaire bi jeex bu contrat bi waree daw ci yeneen contrat dañoo war a fayaat mais te ñun loolu amuñu ah non non non buñ la fayee benn affaire boo may tur man dal na ma ci ay si lépp ay publicité yoo xam ni bi ma waaj di woo ñëw na ne ma moo rek bëgg nga jàpp ci rek ci publicité bi ok boobu kon ay Marichou moo waroon daw Marichou ma defal gars yi publicité bi affaire ay karo la woon mu ne ma juste pour ay jours la mais imaginez deux ans après trois ans mu ne ma gis président bi ko def tawaat mais mënu ma sax jot waa ji pour wax ko ne ko mais attends mais qu'est-ce qui se passe yow lii la ma xool léegi lii donc on est on est exploité ak on est exploité gars yi pour dire la vérité loolu du man rek même yéen ñi ñu ma interviewé sax ñu ne yéen rek parce qu'on est sur la même longueur d'onde merci grand merci à vous gars yi bonne fête merci grand